حسبي ربي واكتبت بيعي ولست أدري غير العلم والدين gu am solo gile di Mawahibul Akyas comme ni ñu ko baaxoo di defee ci at mu nekk ca pàkk bu sell ba di xel koom ren gile di seen juróom-benneelu édition bu ñuy togg ay xéwal lu toll si 99 mana si ay plan yu wuute di ko séddale si biir daara yi nekkee si diwaanu Xelkom aljuma ñaar fukki fan ak juróom si weeru novembre si lañu door liggéey bu am solo أخزى سوى مالكي لأنه جل يغنيني وينجيني jot itam ñu koy jox kenn si membre yi bokk ci kuréel gi di Mawahibul Akyas seen jile ñu ngi fii si Touba Mbal ci kër soxna Fatma Diop fi lañ doon amale liggéey bu am solo bile lu toll si fukki nag ak ñeent ak benn giléem la ñu fas yéene lawetal ngir mu dem si jàmbaar yi nekk si waaroo sa Touba وعلي لمن عجيت عنا لأنفسهم عز المشاكين أو كيف يأخذني حب الهدى إلى جوار من القول سيأتيني إن كنت زعنا أو كنت زعنا دعوت ذا العين غاب لوائي وزير تكون ما سأيتك بني إن زادك إلى أمر إن كان ذا عجل أو زادك إليه يبدأ إليه يا ما يلوم أبصر وأنا عزيلي إذ لست من فقديدي دنيا بمعزوني إن كان بيزون في أدمي فذاك عيب النبي ليس يحصيني déggante non non dañuy déggante waat ci kanam moo ko xam àjjuma ji bett nga ma mais damay dem làmb téléphone non non làmb téléphone bi lu disponible lii ñëw gi dafa am parce que dañuy dégg mais xamoo woon dayo bi daal danañ la wax mais ku teg bët moom da nga yor benn in kaana bi yazo dun fi oda miimo noo ngi delloo sant yàlla bu baax nag ndax daaw moo nu mayoon nu fekkee ko nu taxawal liggéey bu toll nii nu ñaanoon ko it bu déwénee nu fekkee fekkewaat ko mu may ñu ko ci coobareem ci mbaaxam ci sañ-samam ñu ngi ko ci sant bu baax moom borom bi di ko gërëm te di ko ñaanit it nu fekkewaat déwén te weesu ko wax dëgg yàlla sant nañ yàlla bu baax ci liggéey bi ndax mun moom xanaa tur la rek waaye doonuñu ci dara lépp yéen la rawatina ki nga xam ne moo ne ci bopp bi muy Moustapha Lo Junior te ànd ak ñëpp mbir mënut a ñàkk bopp waaye lii ki ko xool xam ne du liggéeyu kenn nit ku ko xool xam ne du jëfi kenn nit kon képp ku ci jàpp mbaa nga amoon yéene jàpp ci rek ak noo ci jàppe nag toog fa nga toog sax na lii lu rafet la wala lu baax la sax ci jàpp yi la bokk te borom bi tax nga di ko def ak sëriñ bi gis na ko kon ñoo ngi sant ñëpp mënuñoo lim ñépp am na ñoo xam ne sax mën naa ne Moustapha xamu leen wala keneen wala keneen ndax jëf yi fu nekk lay jaar ñi nga xam ne it yàlla dogal na yëkkati nañ seen alal ak seen xalaat yu rafet indi ci waaye ñi nga xam ne it ñoo koy sottil mooy ñi fi nekk ñii ak ñeneen ñi ñëw mooy ñuy togg ak ñi koy topp toog ñi def nangam ba bañ koy jébbale kenn ku ci nekk jàppal ne lu sa morom def rek def nga ci lu ko ëpp mbaa def nga ci lu mu toll ndax mbirum mbooloo moo mel noonu kon ñoo ngi sant ñëpp te di leen gërëm. te di xam na daal képp koo xam ne xalaat bi dong rafetlu nga ko waxumala ak nag sa alal mbaa sa jëf mbaa sa jot mbaa sa leneen nga def ko ci rek yàlla na sunu borom fay lu kawe sa njort ci barkeb sëriñ bi te rafet nañ ci njort bu baax ndax defuñ ko benn defuñ ko ñaar at boo gisee nangu ñoo weesu limu 99 bi nag lu bari dañ ko umpale euh, bi ñuy mujjee togg te togguñu 99 dañoo defoon 92 bi ñu demee ma leeral ko Serigne Cheikh mu Serigne Saliou mu ne bu ëllëgee def leen ko 99 mooy turu Saliou te loolu ndigal la booba léegi nag ñi ngi sàmmante ak moom yàlla di ci def ak jàppandal nag gis ngeen tawfeex yi ni mu bëree macha allah lépp sëriñ bi la rek lépp sëriñ bi la. Moustapha nag moom mënuñu mënuñu mënuñu ko fay ndax wax dëgg yàlla lii ba mu koy xalaat boobu egsi fii waaye xaritam yeeg àndandoom yeeg ñëpp kenn ku nekk jàpp ci. ba mu egsi fii tey moom bu ko bu ko xalaatee it wala mu koy coordonné it fii mu egsi tey xam nañ ne jëfam kese egsi woo fi kon képp ku ci jàpp ni ma koy waxoon nag ñu ngi lay sant bu baax te di la gërëm te xam ne lii moom xaw ma jëf juy takk waaye jii du ci bokk fi mu jëm am naa yaqin ne moom képp ku fa dugal sa jëf ak lu mu mën a doon sunu borom dana ko nangu te dana ko ful rawatina nag nga jëme ko ci bernde. ndax kat sunu royukaay ci ci ci yoonu Serigne Touba yi mu Cheikh Ibra kenn ku nekk xam na ne daan na wax ne ndab dabe kenn ku nekk dégg na ko te xam na ne moom bi mu ñëw ci yàlla seedaan loolu bi mu ñëw ci sëñ bi amoon na ñu ko fi jiitu ci sëñ bi waaye tey kenn mënul tudd sëñ Touba te tudd Cheikh Ibra kon dafa dabe la mu nag mooy dabe nag lii lii bokk na ci muy bernde kon nañu rafet njort te gën a góorgóorlu gën a jox suñu bopp sëñ bi. alal adduna ji bu ñu ko yàlla jox kat pour ñu liggéeyal sëriñ bi moo tax. gannaaw bu ñu jullee tàkkusaan ba noppi kuréel gu am solo ji di Mawaayi bul ak ci la ñu doox bi taal mbana yi fas yéene fanaane togg ba asamaaw seet. يا ذا الجلال يا متهل يا خير والي أجب يا متهل يا خير والي أجب دعائي صل وسلم على المكلم واهدو عجم وذنبي عائي وزد سلاما واذكر خلاما لي وبنائي يا ذا الغنى يا ذا الغنى خلي سعادة siddan iqtidaa yaakaaroon naa li ngay teg dina mais yow soo tegee ba teg 40 mën a dégg mais bii comme ñëwul suuf na jël añu daara yi ila jafaa'i e, tayyib masaa'i e, tayyib xanaa'i e, ya zal wujudi kulli واجعل وجودي فوق العناء أبلي ودادا كل المرادا يا من أفاد بلا قراء أبلي من فادا بلا جنان fukki fan ak juróom-benn si weeru novembre bi ñu xëyee ci suba si ci la ñu gaare camion yi yàpp si xéewal yi wutali sa pàkk bu sell ba di Xelkom ànd ak seen jëwrin ju ràññeeku ji di Moustapha Sy تميها فلتك في جوها لمن يغاي أنقذ يالي من الضلال وبالعلال خلي الصلاة خني عتاب خل الكتاب واقبل متابا يا ذا استواء يا خير ربي خير مربي طيبت قلبي بعد اتجائي صل وسلم على المتمم وكل عازم بلا اندعاء صلي وسلم على المتمم وكل عازم بلا اندعاء صلي وسلم على المتمم وكل عاسم بلا انتهاء أوي مكان يوبوة الفبس بندكاي تجوية سنسالي كتدك تقكو أوي مكان يوبوة الفبس بندكاي te jooye di sëñ saali ku tedd ka tagg ko muy di su ngeen dégloo ma jaaleeti leen koy ka doon doomi sëñ Tuuba te mbootam mu doon ko ma del seeti jooy saa waaja saab sang saab sëriñ boom nga moo xel koom ka jooy ba xottiku jugal way fees sab xol ba yembat sax leneen lu dul moom amul fum dem ci sab xol te sant ko wayal waajate yow mi nga nekk ku ku bon ku ñàkk boromam boo sax ci bëgg ko danaa way tax man mi ma doon te doon ku yiw defal ndànk tey ji dana wax ba dajjiku danga war a sant ndax mba mu mel ni moom nga nekk di ab dongam li lee màgg seetlu ko damay maasiyal tey yoonu ñaareel sama sëriñ borom jannatul mahwa turam ku ne xam na ko awaay mbàkke yaa weetal nun nun ngi weeta weet sa dem gile mooy mbas kuy julli loolu yëg na ko dañoo mujj mel ni lii bu yaayam ja xëy ni mes mu dëkke di jooy kenn munta ba mu bàyyi ko sëñ saali woo baay sëñ saali woo baay sëñ saali woo baay ci ñun ñi teew na ndey xanaa misaal la ko def daal ci xamle ko lu def convoi bu mucc ayib déparé fii si 28 si buntu kër Serigne Thierno Diouf Lambaye jaar fii si rond-point ancien garage Dakar jaar tali bu bees dem yoonu Daaru Rahman def direction ak xel ko Serigne Saliou woy koog noonu fu nuy jëm fu mel ni moom gannaawam du am moo xan mu joojale jàpp ko bisam booba mooy ab bis budul fel ci xel yi mukk kew ko muy jooy ca kaw yàlla xam na ko demam geeg demum yonen ba ñoo bokk menn mbir sëñ bamba tey ji daal lañuy doo ñàkk ko nasaaba ya fàddoo woon ba fàttini sun borom lañuy jaamu dub yonen aboo bakiri xamle ko nasaaba ya fàddoo woon ba fàttini sun borom lani jaamu dub yonen abubakar xam la ko kew xew na maa gis nit yu saalit di jooy ca kaw mu am waaju naa gëm leen boom bi te tudd ko mu am waaju naa toppal nga naanu gëm gëmun fenn tey ji yàlla kenn du fi sant ko sëriñ Abdu nee ne na saa jëmm ji ñaar ba jenn ji toogal bamba jee dem muytu ko sëriñ Abdu nee neexoon na sa jëmmu ji di ñaar ba jenn ji toogal bamba jee dem muytu ko sëriñ xabbaan sëriñ fallu kiimaan dem na xabbaana woo muyit ya nekkoon fa moom naa leen nan ngeen moyta fonk ko sëriñ fallu kiimaan dem na xabbaana woo ya nekk fan fa moom naa leen na neen way Fallu kiimaan dem na xanaa xamuleen man mi bu sa ndaw gi del si woon xanaa man mi bu sa ndaw gi del si damay def ni yéen tey bi seen waaji topp ko xanaa xamuleen man mi bu ndaw gi del si woon damay def ni yéen tey bi seen waaji topp ko sëriñ Abdou Khadir ne dee siyaar ko ndax dafay maye am peseef ndem amoon nga mu dolli ko sëriñ Abdou Khadir ne dee siyaar ko ndax dafay maye pasteef ndem amoon nga mu dolli ko sëñ Abdu neene xoon saa jëmmu ji di ba jenn toogal Bamba jee dem wiitu ko gaay nan sant Seex moom mi tax tey nu am xéewaloo baax tey nu am xéewaloo gaay nan sant Seex Saaliwu moom mi tax tey nu am xéewaloo mooy doonay Seexuna Alxaadimu góor gi jaar kokki jaar jéewaloo bana waywaloo masta mooy liili yoon waw xadim masta tooñ masta juum fawaloo mooy xiyaasun lana qutbuna mooy mbégum gaayi nan jébbuloo sant nan sëñ bu mel nii nga mel yombuloo sant nan sant nan sant naa sëñ bu mel nii nga mel yombuloo waa tey xaay nguur gi it fal nga leen semmaloo wan nga leen Seex Bamba mi moo ko ñor jénguloo noppi geek maanu geek sammu gi noppi gi teewula yewuloo tami yaak jàngaleek yar ci diine yaa dey gaayilan ya ñaaloo ajjuma bis bu màgg ba gannaaw fajar la sang ba julli ba doo weddu suba na makk jublu penku ba boobee la bu yàlla yebal malaaka ya ma ne mu jël ruam gu sell gam xamul gu ni moom ca dend ba malaaka maa ngay naaw di wey waa asamaan ya naa ko cey leer gi nga àndal moo kay xanaa imaam bu màgg ba guddi ga la soo siiw guddi ga nag la doosiw xibaar ba tas ci mépp réew ma mel ni dogu ma tayeew maag bépp donga bum fi ba ñun ñëpp mujj mel ni liir boo xam ne ak dundam ci weer la tollu nday jaxay ko mu yuuxu ek ta tawa ba julli di ñëpp a ngi sangeem muy di ñëpp mujj luum ñeneen ñi sax ñëpp ngi yem sa gi ak li fi ba ñi a ngi jooy ñi a tëb adduna bépp maase rëb jelli ya jib si kar jib ku nekk naan way sang ba koo gis mu naa la doy waar du mën a sax wax wax ju leer xolam ba fees xelam ma réer mu dal di jàll buntu ba nanu xalam ngën ji mindeef ay bay saal dellu xalam man ji mindeef kon xëy na nun nu mën a giif nan dal te ba sun ba waa ahlu barsax kenn desul ñëpp nga jug di tatagal borom njuul ak njàppundal Seex Saalihun xalifa ba daa mel ni maa ngi lay jineer ay bay saal mel ni maa ngi lay jineer ngay saafonte ngën jinaar ak xaadimam bu doy ba waar ci àjjanay firdawsi ba ña ngi lay jotal seeni ngërëm te naa la yaari ndam li nga liggéey doy na ndam lislaam bi jël nga raaya ba waxal kanam tàndar liggéeyal Serigne Touba moom rek moo fi des ci liggéey moom rek la nit mën a nekk doo ko rëccu ba ilaa yow mi diin te bala ngaa xam njariñam nga faatu bañ di bañ suul woon fukki simili ak juróom-benn moo bootu si fukki waxtu ak ñaar kuréel gu am solo gii di yi bul Akyas yegg si ci pàkk bu sell bi di xel Xelkom bi ñu yeggsee itam ñu jublu si liggéey bu am solo bi te muy wër daara yi commencé distribuer xéewal yi si mboolem daara yi nekkee si diwaanu Xelkom Abdullahi xundisilaa xamdan lillahi dogal di kaat na buur yàlla mooy buur nguuram gi mooy nguur waxam ja moor dogal ba wey na kuy joor joorul kuy daanul daanul kuy de bu waaye dem du jaas yonen ba dem na noxin ma dundoon junni bu tooloon adama sancoon adduna dem na yeneen ya dikkoon fii la romboon ñoom nañu tolloon ñoom ñépp dem naay ka julli woon ngeen Cheikh laaj ka julli woon ngeen Cheikh laaj borom da koo laaj wuy ji dem naa adduna bee ku yóbbu konti kii daal di Serigne Saliou kii di Serigne Saliou daal di Serigne Saliou meesu ko jaal kii di Serigne Saliou kii daal ci dun bi dem naa Serigne Saliou liggéey Serigne Sadio rek Serigne Touba ngay liggéeyal xitmaal Serigne Touba lañ ci jublu wut ay bernde indi ko fii Xelkom jaar ci daara yi yéen yaakaar naa yéen ñi fi nekk yëpp gis ngeen liggéey bi ni mu demee amul folklore euh, folklore amul puukare dañuy dem ci daara bu ñu laaj leen lan ñuy yittewoo bu ñu nee bu ñu ko gisee ne mbooloo mi soxla nañ ñeenti mën a ñu wàccee leen ñeenti mën bu ñu gisee ne mbooloo mi soxla nañ ñett ñu wàccee leen ñett suñu gisee ne soxla nañ juróom ñu wàccee leen juróom suñu paree dañuy daal di continuer demaat ci yeneen daara loolu nag suñu ko manee am rek c'est grâce à euh, Serigne Touba Xaadimu Rasuul mi nga xamante ne nii liggéeyam amul tànki ginnaaw tànki kanam rek laa am yaakaar naa liggéey bi gis nañ ne at mu ñëw lépp dafay gën a yokk moo xam muy mbooloo mi moo xam muy berne bi waaye tamit moo xam muy posté bi ci taalibe Serigne yi di wane ndax gis nañ ne ku ci ñëw ren bu déwénee da ngay yokk yokk googu nag mooy yokk xewal yii nga xamante ne nii du ñu ko sante kenn kenn kenn ku dul Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké Khadimou Rassoul mi nga xamante ne nii euh, ñun génération bii nii yaakaar naa moom lañ gën a miin ci njabootu Serigne Touba yi wax dëgg yàlla bari na lu ñu jàpp ci yoon wi bari na bëgg-bëgg bu ñu am ci Serigne Touba c'est grace à Serigne Saliou Mbacké loolu nag munuñu ko cee fay lii ñuy defa defakus néew dañuy jéem a nat na bi rek ngir dab ci ngërëmam waaye Serigne Saliou mënuñu koo fay ci Serigne Touba ndax ñun moom Serigne Touba rek lañ gëm moom rek lañ am te moom rek lañ jàpp te moom rek la ñuy liggéeyal ba tax na képp ku ñu gis koo xamante ne nii njort nañ ne suñ la liggéeyalee am ngërëmul sëriñ Touba dinañ la liggéeyal te loolu moo valable ci Serigne Saliou Serigne Saliou lu ko waaye defal Serigne Touba nga ko defal direct amul jàdd jàdd amul làq-làq loolu ñun ñëpp xam nañ ko Aliou fa góor ña jaar romb na fa ak taaram xuus na ci diir ba jal dem xam-xam ba laay jooy am baax ga laay jooy am tag laay jooy sëriñ saaliwu dem jumaa mooy jooy kaamil ba mooy jooy am dëkk bee jooy ku yiw ka dem jooy am sunna yaay jooy mën doo jooy sawaaja dem la makka da ngay jooy day jooy lislaam a ngay jooy sëriñ Saalimu Dalaam xel koom da koy jooy ñaaroo da koy jooy juróor a ngay jooy seen waaja dem laa tëm ba day jooy xayam ga day jooy ku nit ku baax jooy kuy ko dem la mbooleem daara bu ñu egg itam ñu fësal seen mbégte rafetlu bu baax a baax liggéey bu am solo bii kuréel gii di Mawahibou Akyas bi taxawu at mu jot wante ñaanal leen itam yokkute bu baax a baax tax na nun nu gëm yàggam fi ak wérug cërëm ak wérug cërëm sëriñ saali woo mu tàmbalee nu gën a gëm mu daldi dem te yëggagul ku di jullit joole ma sunu sang bi dem na bu na kun ci sa taa sëriñ saaliw yowmal xiyaam yowmal xiyaam la dayoo xamal jooy naa ko jooy xol yu faar faar man ñàkk naa ñàkk na rusufaar man ñàkk naa man ñàkk na rusufaar sëriñ saari wo ñàkk na rusufaar nga yite yi di ñàkk nañ ko mag ñi gasa ak a ñàkk nañ fu ñu jëleeti sëriñ saari wo waaja daa ba bi ko ne ka tam tamal bàyyi daam sama xol bi sedd na ko yow ay daal ñëpp ñoo ànd yow liggéey daal doy na ma sëkk barke sëñ Saliou sama xol bi sedd na ko biñ jugee seen xel teew rek biñ jugee biñ jugee waaye nag maag yow ko tàmbali woon moom bëggut yi bëggut yi jërëjëf jërëjëf loo sama xol bi sedd na guy yàlla la xiir ci Serigne Touba daal yàlla la yàlla baa njabootu Serigne Touba gi jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf sama xol bi sedd na guy daal am daa jërëjëf jërëjëf jërëjëf gaay mais ñoom ñëpp bañ na seen i place taal seen oto daw ay junniy kilomètre nee ngir ñëw fii rek barkeelu ci liggéey bi ren nag da ngeen di ko 99 ya ñu seen Cheikh Saliou defoon mais dañuy daw nag séddale ko xaar wàcc teg ci tekkawee di ko sant xaar ne ñu ngi lay sant gërëm di ko ñaanal suñu Mbàkke mais di la gërëm di la ñaanal bu ñu gëstoo gis Serigne Saliou mi mais bu ñu gëstoo gis Serigne Saliou ma laa ji baara defaru Serigne Saliou mais di defaru Serigne Saliou jaar ci loxoy Serigne Saliou Soxna Fatou Sidi. nee soxna maam Fatou Sidi moom sëñ Abdou Lahad. nekk sëtub Serigne nee nekk sëtub Serigne Saliou. jàmbaar ju réew mépp noonu. nekk soxna maam Fatou Sidi nekk jàmbaar ju jàpp na. nekk jigéen ju mat góor. nekk jigéen ju mat góor moom maam Fatou Sidi. dal na ci mooy mais sunu xol dal nee minicar mu Serigne Saliou. kon yu bari fii ci tool. kon moom at yu bari fii ci tool. Omar Omar. minicar di jàmbaar ju mat. yàlla aar yéen waa waa. yàlla na leen abdullahi xul bismillah xamdan lillahi dogal dikkaat na bur yàlla mooy buur nguuram di mooy nguur waxam ja moor dogal ba wey na kuy joor joorul kuy daanu daanul kuy jooy xaacul jooy dëggu jot na dem de bu doon jaar ma di naam sans waaye dem du jaas yonen ba dem na noxin ma dundoon junni du toodoon adama sañcoon adduna dem la yeneen ya fii la ñu romboon ñoom nañu tolloon ñoom ñépp dem naaj ka julli woon ngeen Cheikh Bamba laay laaj ka julli woon ngeen Cheikh laaj borom da koo laaj ji dem naaj adduna bee ku yóbbu konti te a tee faat faat waxtu wey kii daal di sëriñ saaliw kii daal di sëriñ saaliw daal di sëriñ saaliw meesu ko jaal kii daal di sëriñ kii daal di sëriñ saaliw ñi meesu ko jaal dun bi dem sëriñ saaliw kafaw xarijaal ci dun bi dem jigéen ñi nag gis nañ seen taxawaay ci liggéey bi mën nañ ne wax dëgg yàlla liggéey bii nii ma gis muy doxee yéen ci sax man góor ñi waaw kon wax dëgg yàlla liggéey bi macha allah kawe na lool te loolu bu amee yi tamit war nañoo am quelques noms yu ñu war a cité donte sax ku lim juum te liggéey bi tamit ñëpp a ci yem ki ci def dërëm ak ki ci def un milliard ñoom ñëpp a ci bokk yem ñun ñëpp ñoom ñëpp a yem ñun ñun pas-pas bi rek la ñuy xool waaye wax dëgg yàlla euh, soxna maam faat Sidi mm-hmm. ak soxna Fatma mm-hmm. wax dëgg yàlla gis nañ seen taxawaay ci liggéey bi wax dëgg yàlla ba liggéey bi tàmbalee ba léegi lépp lu ñu mas a am bépp jot buñ mas a am bépp yitte buñ mas a am def nañ ko ci liggéey bi ba mu jeex tàkk loolu nag hmm. defaluñ ko kenn seen bopp lañ ko defal ndax Serigne Touba moom ku ko liggéeyal moom moo lay fayal boppam moom du la boole kenn moom moo lay fayal boppam yàlla na leen Serigne Touba fay yéen jigéen ñi kontaan nañ ci yéen bu baax a lu baax képp ku koy def defaloo ko kenn sa bopp koy defal mu ngi mel nag waxande wuñ jël tijji mm-hmm. ku ne loo fa sànni ëllëg ko tijji la koy fekkaat mm-hmm. kon bul ko gis bul ko naw bul ko yëkk jàppal ni Serigne Touba la ñuy liggéeyal te mooy jëmm joo xam ne ku ko lebar ker ku ne mu fay la guddi ñun nag li ñuy wax nekk ay taalibe yu xeebu rek dañ cee am yëg-yëg ak luñ ci gis suñu bët moo tax tey ñu koy wax ndax bañ ko commencé ba tey chaque année ñi ngi ñëw mais at mu ñëw bu dellu si rek ñun yëg nañ ñun yokkute ñun ci suñu côté te gëm nañu ni ñuy yokkoo gëm nañu ñeneen ñi ñëpp tamit noonu la ñu yokkoo kon Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am nag géej la nag noo ci duggee rek noonu ngay tooyee boo fa yemale say tànk say tànk ay tooy boo sóoboo ba tooy xëpp nag dooñee kenn sa àdduna ñu nag fas nañ ci yéene sóobu ñu nag jigéen ñi ñu àndal ak góor ñi di suñu kilifa. mooy bu Lakias yamul ci xel Xelcom kese bëri na ay activités yu muy def xëy na bii dafay activité principale bi maanaam dafay dafay dafay dafay dafay dafay activité principale bi maanaam day bi ci gën a mag mm. day bi ci gën a fës mm-hmm. waaye ndaw Mawahibou Akyas bari na ay liggéey muy dugal loxoom lépp loo xamante ne nii gis na ko muy lu jëm ci liggéeyal Serigne Touba Mawahibou Akyas ma nga ca loolu moom yaakaar naa gis nañ ko gisati ko moo xam muy ci bisu xasida yi moo xam muy ci bisu sikar yi moo xam muy ci bisi Seex Mouhamadou Mountakha woote yëpp gis nañ ndawal Mawahibou Akyaas dugal ci loxoom ànd koog yeneen i kuréel loolu moom Mawahibou Akyaas daal Serigne Touba lay liggéeyal bépp liggéey bu ñu ko woo boo xamante ne nii liggéeyal Serigne Touba la mu dem ca ba jeex lépp luñ ko woo loo xam ne nag Serigne Touba nekku ca bu soobee yàlla kenn du ko ca gis. fa góor ña daa jaar romb na fa ak na ci seen biir ba jàll dem xam-xam ba jooy am mbaax ga jooy am tax ga jooy sëriñ saaliwu dem jumaa ji mooy jooy këmil ba mooy jooy am dëkk bee jooy ku yiw ka dem jooy am sunna yaay jooy mën ngay jooy sa waaja dem makka da jooy madina day jooy lislaam ngay jooy sëriñ Saaliw dem naa xel da koy jooy ñaaroo da koy jooy juróor ngay jooy seen waaja dem laa tëm nga day jooy xayam nga day jooy ku nit ku baax jooy kuy ko dem la sëñ Saaliw sëñ Saaliw nun ñeenti waxtu si ngoon tegal tuuti si la ñu yeggal liggéey bu am solo bii ci daara bi di daaru tansi gannaaw loolu itam ñenn ci jàmbaar yi taxawu liggéey bu am solo bi jëmale ci si taxawaayu kuréel gi ay objectif waaye sant itam mbooleem mbàmbur yi nekk ci biir kuréel gi di Mawahibul Akyaas yowmal xiyaam la de yooyu xol yu faar man ñàkk naa biñ koy def boobu daayira amagul turu daayira amagul waaye biñ koy def ba ci yàgg Serigne Bass moom Serigne Abdoul Khadir bi ma nekkoo dañuy dox ci biir Touba sant Serigne Touba sol ay yëre yu weex tàll yëkkati nataalu Serigne Touba ci la ma wax ne ma tudde leen ko kon Mawahibou Akyaas di ci liggéeyal Serigne Touba mais añi xel Xelkom moo jiitu Mawahibou Akyaas kon ñoo ngi ci sixième édition mbokk yi nga gis yaakaar naa su dee am nañu ci yokkit bëriwul. am na ñu des am na ñoo xam ne gisoo leen waaye ñii ñooy Mawahibou Akyas mbana yi sa sëñ Baye Modou Yali wax na ko léegi première année bi euh, dix lañ amoon yéene def ko far am juróom wala juróom benn murid ko yëg ne ñu mujj def ko vingt cinq euh, biñ ñu koy def vingt cinq def ko quarante cinq bi ñu ko defee quarante cinq def ko soixante cinq bi ñu ko defee soixante cinq def ko quatre vingt deux mbana ci la na nekk toq ci nopp Serigne Cheikh moom Serigne Salif ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér mu ne dem leen ngeen jël limum ñaari neuf yi muy quatre vingt dix neuf muy téeméer bu manqué benn dee leen ko togg di ko yóbbu daa nañ ko toggee juróom-ñaari façon plat yu bokk mais ren ak euh, <laughs> temps bi muy jël ñu yemale ko ci ñeent palaa amoon na touffé amoon na petit pois amoon na ma ma ma li nga xamante ni mooy mooy mooy mooy ceeb yàpp ak mbaxal. daara yi indi nañ sept daara daara yoo ci yu ci nekk woote nañ fa euh, dans une semaine na leen kat bisub samedi bi dimbali leen ñu ko ndonga ya fa nekk barkeeloo ci ñam wi ñuy togg ñu nangul ñu ko doon xaar añ bi ñu xëy am na camion boo xam ne dafa chargé ba fees 36 mbana la chargé moo dem ci daara yi. peut-être yéen sax am na euh, xëy na oto yu boobu gisu leen ko euh, oto yi àndaloon ñun nag moo nekkoon ci dal yi ci dal yi la ñu yendu yéen a ko gisandoo comme ni ñu koy defee at mu jot tasaare ko ci biir dal yi amul xàjj ak seen. am na kuréel goo xam ne ñoo ngi leen di sant muy Lamp Fall leeral Touba muy ndaw ñoo xamante ne nii gis nga leen ci wàllum yéegal ak wàccee euh, ñaari commission lañ leen organiser ñoom ñoo yor wàllum yéegal mi wàllum wàcce mi fépp fu ñu àgg dañuy àgg sotti mbanam bi jëlaat ko tegaat ko ci kaw oto yi ñi ci nekk daal damaa jàpp ne ñu bokki pas-pas lañ moo du wax na ko léegi jigéen ñi démb dama leen di xool ba ci yàgg ñeen ni ma yërëm leen ndax bërki démb ba suñ joon yàlla tey démb ak tey moom xam naa ne de bërki démb ak démb xam naa ne gëmmuñu bët loolu nag lu ko gën a metti amul at mu njëkk bi sëriñ bi daf maa dimbali ma jóge bitim réew yor xaalis di waxtaan ak sama benn xarit ne ko damay dem def fukki mbana boobu la ma jàppoon mooy dinaa génne million ci sama poos def ko ba may ñëw di def fukki yi ko yëg te bëgg lu baax ne ma déet saay gënoo ñëw bëgg lu baax yóbbaale ñu xoon ñu def vingt cinq léegi nag suñ jógee ci vingt cinq di dem bay def quatre vingt kenn ku nekk di jaayante daayira bi suñ tool nii damaa damay bëgg a yaafus ndax gars yi romb nañ ma bu yàgg a yàgg maa ko soso sosoon mais romb nañ ma bu yàgg ci jëf kon su may toog fii di lim ñi ciy jëf damay juum kon du mat waaye ay murit yu gëm sëriñ Touba bëgg ko bëgg Serigne Saliou lool jàpp ne astuut si leen yàlla suñ borom may war nañ cee mën a liggéeyal Serigne Saliou ñooñu ñooy toog du ma def ab su ma defee appel bi ba pare pare naa ci ku ci jëf yaa woote sa téléphone Moussa sama addiye ngi noonu de yóbbaale ma defaaleel ma ko ci mais appel la def wax programme bi ne nii lañ koy defee fii lañ koy defee ba sàngam lañ pare nañ ci day wër ndax liñ ci jublu woon mooy que ni rek ñu xam ne kenn muumu ko yëfi ndawi Touba la doon nañ ko an bu njëkk mi fi ma dëkk lañ ko defee ñaari at yi ci topp ñu yóbboon ko kër Serigne Saliou Serigne Alaj Baara at mi ci topp soxna maam Fatou Sidi ñu koy nuyu bu baax moo Modou wax na ko mën naa ne jigéen ñëpp yóbbaale na leen géew nam cay doxee moo yéeme pas-pas bam cay doxee ak lam cay def du toog di ko wax waaye ñu ngi koy ñaanal ndax daa jaay njureelam euh, euh, jënd ko taalibe euh, ñaari at yi at mu ci nekk su naan saso naa duñ bis bi mooy njëkk a saso danaa ma saso naa nangam. kon moom dañ koy ñaanal gudd fan ak wér. gëm sëriñ bi te di jëf ci sëriñ bi am na ñoo xam ne dañ naa ma saay sama barkeeloo ba bu ko doomu adama dégg de lii de maa ko barkeeloo waaye xam nga ñooñu dañuy def te sëriñ bi tax ñooñu dañuy def te yàlla tax ni ciy jëf laa la wax xaw ma nu ñu toll. dama ne su defee appel bi parce que ñoom ñoo ma woo ma wuyu ñu ne ma sëñ bi lii daa baax soo koy defete nañ koy yëg moo tax su ñuy def appel bi ñu yëgle ko ñett daan ànd ak ñun démb ak bërki démb soo demee ñoom ngay dégg ci appel bi. suñ defee appel bi ba pare pare nañ ci ku ñëw gaa ñi dem ku ñëwut gaa ñi dem kon xéewal yuñ fi jëlee yool buñ fi jëlee tuyaaba juñ fi jëli yàlla nañ ko bokk ak képp ku dib jullit waaye képp ku dib taalibe dañuy toog rek suñ ñee jàpp nañ bàcc mi bis sàngam soxna yi sasu góor ñi sasu ñun duñ teg di cotiser ci daay lay soxna maam Fatima daaw doon na ko soññee waaye dañuy toog rek moom mu daanub jël moroomam daanub jël keneen daanub jël noonu lañ koy jëfe ba jëf ji mat daaw ñu ngi woon ci fukki xabban ak ñett ren ñu ñëw ci fukki xabban ak ak ñeent ak gileem kon loolu yokkute la. ak i ginaar boole ci. liggéeyal sëriñ bi moo amul budget démb bi ma ñëwee fekk ñu séddale ndawal gi ba pare ab jal des fa dama ne leen nañ ko sottiwaat ci biir ci yi ndax sëñ bi duñ ko daaneelal ay xabaan ba pare naan dañuy desalug ndawal loolu amut. nañ ko sotti ci cin yi jërë ngeen jëf. sant ñëpp gërëm ñëpp di ñaanal yàlla suñu borom gaa yi gën a waaw gën a pëseef bi na waaw. oto oto def ndànk ci yoon bi. def ndànk dal ndànk ni ñu ànde woon ñëw yàlla nañ ko ànde delloowaat ca Touba ca Serigne Saliou Mbacké ñoo ngi ñaanal ñëpp. jërëjëf